tànku mbokk la tànku doom la euh, xam nañu ne ñàkk ngeen hmm. waaye Sénégal moo moo ñàkk dëgg euh, ku ne xam na ne hmm. euh, Moussa ni mu génne àdduna hmm. metti na waaye jàpp ne Sénégal bokk nañu ko ak yéen loole it moo waral suma tànk yi mm-hmm. ñu jóge ndakaaru mm-hmm. ni ñu ko fa defee mm-hmm. dem seeti ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci jafe-jafe yooyu amoon ci réew mi ñu dem seeti leen massawu leen dëfal leen waaye ñaan suñu borom mu jox leen xolum muñ yàlla moom mooy tegee nattu kon bu leen ko tegee Euh, alhamdulilah ba ngeen amee kattanu muñ ko euh, moo tax tey ñu xëyoon dem Ziguinchor dem Bignona foofu xam ne daanaka ñetti nit ñàkk nañu fa seen bakkan ñu ne it ñu ñëw fii euh, massawu leen ñaan suñu borom teeru ko caljana yi a kawe di ñaan suñu borom jox leen xolum muñ di am njort bu rafetit ci moom mm-hmm. nde ku ne xam na ni ñi mm-hmm. mu génne àdduna martyr mm-hmm. réewam ñoo nekkoon ci jafe-jafe nekk ci xëccoo diggante xeex dëgg ak kàcc su ma ko mënee waxee noonu mu bokkit ci ñi nga xam ne li leen yitteel mooy fexe ba réew mi nekk ci ñi nga xam ne dañoo féetewoo dëgg kon jàpp nañu ne réewam la doon xareel kon bokk na ci ñi nga xam ne réewam war nañu ko bàyyi xel bi nga xamee ne daanu na ca tool woowu ma sol nag su may dal ak ñi ma àndal ngir ñëw ma sawu leen dëfal leen waaye ngeen xam ne wéetu leen yi daal moom mooy kàddu yi hmm. mooy tànk yi hmm. ma delloo leen kàddu gi ba ngeen wax ba noppi hmm. incha allah suñu la rek eh, am na loo xam ne ñoom nguur gi nañ prévoir nañu ñu doole dañ koy séddale mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo loru mm-hmm. euh, mënta delloo si mm-hmm. ñi dem waaye comme ku doon daan doolem la ku ne xam na ne la mu amoon ci njabootam la ko jëmee ak i way juram ñu ci ñi leen di jàppale dëgg la leen loxo rek di sàkk ci yéen ngeen ñaanal réew mi réew mi soxla naa jël kàddu ba mbokk yi ñu ngi wax waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi leen di fay nuyoo di jiital ci kii sunu mbokk mi sunu xarit bi sunu soppi bi muy xaaju bugaan wax dëgg yàlla du mën a ndax man ba ma koy xam boobu maa nga ndar mun ne ci Teranga FM rajo Golbert mu doon kenn ci man ma bëggoon ko lool ci kàddum ak ci liggéeyam ba yàlla dogal mu ñëw Dakar wal fajiri ma topp ko fa ba li yàlla di dogal ndax surga bu ne bëgg a xëy na nekk njaatige loolu la ko yàlla dogal waaye wàllu social def ci yëngatu bu baax li muy def ci réew mi xaj na Ndofane mu ngi fi doog a taxaw waaye jikkoom ak liggéeyam yegg si na fi bu yàgg. kon li nga def nii tey xanaa ku la xamul moo naan gulet waaye ku ku xam ku la xam say activité sa ci wàllu social du ne gulet te it nag dañuy wax ne yonent bi def ne musiba lu mu rëy rëy rëy boo ko bokkee say mbokk rek mu oyof te it sa tànk bii tey kii mooy woy juróom moo doon taawu kër gi doon jàmbaar lool jàmbaar ci diini ji jàmbaar ci tariqatu Seexul Xadiim amut ci woon morom léppam moom la woon Moussa Xasaay sax lañ ko daan wax te ñi ñi daanu ñi ñi ñi ñi génnoo àdduna moo ci mag ndax am na trente cinq ans bàyyi soxna njaboot ko sew génn doon génn doon daani dooleem ànd ak nag bëgg réewam lool li nga wax ba ñaari kuréel yi taxaw mu mu seet bi mu ci àndat kon kooku tey bu buñ ko ñàkkee li nga wax mënatuñ ko am waaye nag bi ñu fi nga teew lu diisul dana oyof sa teewaay fii tey lépp loo xam ne diisoon na ci ñun tey oyof na ndax bu gisutoon kenn bu yedd kenn ndax dañoo xam ni eh, lii moom la yàlla dogal. waaye nag tey boo jógee ko Dakar dem Casamance mas coono na mu soree ak ni ni jot gi ñàkkee ak ni dëkk bi yëngatoo nga ànd ak mbooloo sa ànd lépp ñëw ba fii wax dëgg yàlla sunu xol sedd na. ak lu ñu ñàkk lu lu ñu métti métti métti sa teewaay bi tey dina ne ci lu bëree bëri kon Guèye dañ lay ñaanal yaa groupe des médias bi nga bi xam ne yaa leen jiite dañ lay ñaanal bu baax a baax a baax ak gëm sa bopp parce que loolu day day signe boo xam ne nii kenn ku ne war war na ko bàyyi xel ndax it nit dafay gëm boppam da dox ba ci kanam gis booram taxi bind gëm sa bopp c'est normal ñëpp nit ñi kenn ku ne dafa war a gëm boppam. Mm. moom na mu créé loo xam ne loolu la ko tuddee gëm sa bopp te yàlla dafay bëgg nit ki gëm boppam kon boo tudd xamee loolu tuddee ko gëm sa bopp lii mooy gëm sa bopp kon Guèye El Hadj Bougane mm. kontaan nañ lool xam nañ ne jot gi mayewut ko mm. lenn mayewut ko waaye nag yëg liñ ñàkk xam ne ñàkk nañ doomu réew moo xam ne mënatuñ ko am. fi ñu féetoo woon yàlla rek moo ñu fa mën a féetoo mm-hmm. ko féetoo woon moom it yàlla rek moo ñu fa mën a féetoo kii mooy woy juróom mm-hmm. kii rakkam la mm-hmm. ñii ñaar ñi ñi séq ma ni ñoo noddu ci jumaa ja jumaa ji ñoo fee noddu kilifa gi nag ñoo moo leen ilif ñoom ñëpp mooy alaaji Baye Dramé moo ñu yebal bi mu jógee ne ñëw mu ne na ñëw teerule la ko waaye su nekkoon nag lu ñuy teerule comme ni ñuy teroo gan konoon fii kenn du fi xaj waaye ni mbir mi demee te taamuwoo loolu yoonu jàll moo tax la ñu simple nii waaye ñu ngi la koy ñu ngi la koy ñu ngi lay delloo njaal mi yëg gi nga yëg ne ñàkk nañu rek ñun sedd na suñu xol kon ñu ngi lay wax marhaban ahlan wa sahlan yaag ñi nga àndal di ñaan yàlla sàmmu leen sàmmu seen i mbir yàlla matal méebéli yéen bi nga am ci réew mi yàlla na ko yàlla matal social bi ngay def dimbalante ki ngay def hmm. yal na yàlla jox la loo ko joxe. Hmm. xam naa ne xol bi moom hmm. li ci nekk yàlla na ko war sa yu mate waaye xam naa ne xolam bi moom bu sañoon kenn du ne ci coono su sañoon dëgg heure bu ne dëgg mooy ne ci kaw waaye nag yal na yàlla may la kàttan gi yàlla may la wér gi may la war sa yu xale la bi ñu nekk ndar boobu gënoon na nekk xale xale la li àddina lépp ci kanamam dara jot ko bay wees dañ ko ñaanal mu gudd fan rek su guddee fan liñ bëgg ci moom lépp mën na koy matal. kon kontaan nañ xëy na lam mu la mu la war a wax. mënuma ko caa wutu waaye nag euh, pour bañ a euh, perdre mm-hmm. ñu wax loolu bu amee lu mu cee dolli moom mu dolli ko ci. alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla. waaw daanaka liñ ci dool lu bëri lañ waroon ay war na ndax fu mu tee bu waxee rek ñun dootuñu wax mm-hmm. waaye nag comme ni ne yàlla dogalee it man nañu sànni loo xam ne du bari cant lay doon ak ak ngërëm ak ñaanal leen mm-hmm. ah ndax li xew ku ne xam na ni mu demee mm-hmm. su seen xelee neexee ba ngeen di jot si fii mm-hmm. di fi ñëw di teewal suñ kanam ah, wax dëgg yàlla loolu xitte la ah la xitte boobu ngeen taxaw na di top topp ci biir réew mi yëpp ñi nga xam ne am na naqar ngeen jàkkaarloo leen ñoom ah yàlla leen ci yàlla dimbale ah, fayee leen ko fayee leen ko defal leen li ngeen bëgg fayee leen ko defal leen li ngeen bëgg leen ko defal leen li ngeen ah, ñu ñaan leen gëm sa bopp ngeen gëm yal na yàlla def ni ñu gëm leen waaw yal na defal leen nit ñi gëm leen waaw xam nañ leen xam nañ ci ngëm-ngëm ci yal na yokk mm. waaw ñu ngi leen sant leen gërëm xam nañ ku ñu waxal tey mënuñu ñaanal leen sant leen rek lañ mën yal na yàlla doole barkala alhamdulilah alhamdulilah rafet lu kaddu yi ñu fi dégg mm. euh, Cheikhul Khadim mi mu yaakaar mm-hmm. yal na ko teeru hmm. ci aljana yi gën a kaw Tuba Tuba lañ ko yóbbu sax hmm. am nañu am nañu yaakaar hmm. amoon nañu yaakaar gënoon nañu am dellu nañu gën a am yaakaar nde ku ne xam na ne Moussa da doon daan dooleem marchand ambulant la woon lu mu am lu mu ca gañe ni nga ko waxee muy taawu kër gi lu mu am muy dërëm muy tànk mhm. mu jagleel ko njabootam mhm. ñeenti bant yi mhm. yi mu fi bàyyi ak soxnaam ak ay waajuram kon nekkoon na kenn ci kër gi waaye yàlla nag lu mu def dañuy nangu dogalam waaye day laajit taxaw seetlu nde dafa am ñaari injustice yu dal ci kaw injustice bi ma njëkk bëgg a bàyyi xel man mooy teg ko loo xam ne jafe na ci moom koo xam ne day daan dooleem doon ca am di dimbali njabootam nga ne ko saa si fii ngay yem dootoo defati lii la mu mënoon mënatu ko la mu doon yóotu mënatu ko la mu mënoon di ko yuutu di ko defal njabootam mënatu ko. Mm-hmm. loolu lu ko waral. Mm-hmm. ay kilifa yu jëli dogal. Mm-hmm. teg ko ay nit. te ñoom bàyyiwuñu xel ci conséquences ya mu mën a jur. foofu la may bëgg wax rek. mooy ñi nga xam ne. dañuy dañuy suñuy kilifa. mooy ci kilifa nguur. di jël ay décisions. te duñu xool impact bi muy am ci nit ña. Mm-hmm. ñoom ñooñee it néew doole ba tax ñu jël dogal teg ko ci seen kaw mm-hmm. te ñoom it duñ ca mën dara mm-hmm. lii it ñëwaat dal ci kawam muy ñaari injustice yu dal ci kawam marchand ambulant tey ki jóg di ko def ndakaaru ba musiba ji fekk ko ci jubluwu ci woon lenn lu may teral njabootam mu am ay junni junni junni moroomam yu nekk ndakaaru mm-hmm. seen xalaat seen yéene nekkut lenn lu may teral seen wayjur mm-hmm. ngir mën a taxaw it seen i njaboot mm-hmm. waaye ñooñu kenn bàyyiwu leen xel ñooñu kenn dimbaliwu leen ñooñu kenn boolew leen ci dara parce que ñàkk leen boole ci dara moo tax mbas mi ñëw ñu jël décision ne leen la ngeen doon def di ci daan doole dootu leen ko defati waaye ñun ñi yor caggal guy mën leen a dimbali it amuñu lenn luñ leen mën a dimbali waaye kii nga xam ne fonctionnaire la moom saleeram am danañ ko ko assuré donte dañ koy wax ne toogal ca këram. waaye ki nga xam ne day taaba taaba jënd jóob taf ci njaay ngir teral njabootam ñu ne ko yow moomu ñun yow intéressé wooñu alors que ñooñu ñoo ëpp ci réew mi secteur informel daanaka booy xool. mat nañu juróom-ñeenti million ci Sénégal xanaa kon ñooñu ñoo yor Sénégal xanaa kon ñooñu décision bu ñuy jël ñu war leen a bàyyi xel waaye jël ay décision teg ko ci kaw ñoo xam ne dañu doon daan seen doole di ci teral di ci yor seen njaboot te bàyyiwuloo xel ci conséquences yi décision yooyu mën a jël loolu mu indi situation bi dafa bari ñuy wax ne gone yi génn gi ñu génnoon politiciens yi moo tax ma ne leen jum ngeen. yéen politiciens yi bàyyi leen di xalaat ne yéen a tax nit ñi génn. ñi génn mooy ñi mënatul. ñi génn mooy ñañu fattoon ba la ñu mënoon mënatuñu ko. ñooñu ñoo génn ndax la ñu daan teral seen i njaboot mënatuñu ko. xañ nañ leen ko. te lañu leen xañ joxuñu leen lenn lu ko remplacer. kon man am naa ñeewantal lool ci ñoom. muy ñoom marchand ambulant yi rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo nekk ci secteur informel xam nga ne jógee Ndofane jàng arxuraan ba wàcc bëgg teral say wayjur tax nga dem di def marchand ambulant ngir teral mën a dundal say ñeenti doom dogal li fekk la ci xanaa loolu kenn rek moo ko sañ bu doon nit rek ak i noppam loolu kenn waxatu ko waaye suñu borom moom bu dogalee. Mhm. dañuy nangu rek. Mhm. moo tax bi ko waxee léegi sama xol tooy na. Mhm. waaye suñu borom dafay wax man lam yaxtam bi umirul muslimin walaysa minna incha allahu rabbi ci tuut ci suñu borom li mu ñu dénk. parce que damay wax saa su ne ne suñu borom su la joxee paan. te siwo doy la. xam ne la ca topp du pour yow. pour keneen nu dinañu fas yéene incha allahu rabbi fileeg doom yii di majeur saa su weer deewee danañu jox njabootam ñaar fukki junni yu mu leen di dimbali ko ba keroog gone yi di majeur et bu suñu boroom tegee leneen lu ñu mën it danañu ko jàppale njabootam ak way juram yii nga xam ne e, amuñu woon kenn lu dul seen doom jooju di Moussa te ku ne xam ne mhm. la mu doon daan dooleem mhm. ci kër gi rek la ko doon def mhm. waaye suñu boroom lu mu def rek yàlla nañu réserver leneen lu gën yàlla nañu suñu boroom jox xolu muñ yàlla na suñu borom kattanal leen ba lii nga xam ne teg na leen ko ngeen mun koo daloo mun koo muñ waaye it mu defal leen leneen loo xam ne duñu wax sax fàtte waaye jafe-jafe yi nga xam ne moom teggiloon na leen ko. Mhm. suñu borom gën leen koo teggil. suñu borom mën na ko. yéen nag comme dangeen ngeen dëkkee féetewoo jàkka ji. Mhm. ñu ngi sàkku ci yéen. Mhm. ngeen ñaanal Sénégal. ñu ngi sàkku ci yéen. ngeen ñaanal réew mi mu am dal. ñu ngi sàkku ci yéen. ngeen ñaanal ñi jiite réew mi. bàyyi xel ñi néew doole. ndax kat man musuguma gis réew moo xam ne. dañuy wax na nañu séddalee mbir yi. mu jëm ci néew doole yi moo yëngal réew ma déedéet kon ñi néew doole bu ñu leen bàyyee xel rek amaana réew mi dana tegu ci yoon bi ñu bëgg loolu nag ñu ngi ci sàkku ñaan di leen tàllal suñu loxo di sàkku ci yéen ngeen ñaanal réew mi dal sax fi jàmm am fi taysiir am fi tawféex am fi ñu ngi koy sàkku ci yéen defal leen ñu ñaan waaw الرجيم فلا أعوذ بك فلا من شر ما خلق من شر حاسد إذا وقب من شر حاسد فلا أعوذ بك من شر اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأحوال وتقلبها جميع الحاجات وتبهرنا بها من جميع الأسئلة وترفعنا بها لك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الكلام من جميع الكلام من جميع الكلام من جميع الكلام سبحان ربك ngeen xàgg ci jàmm jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant nañu